aujourd'hui dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les différents régimes, et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant M. Sidiki Kaba et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie M. le ministre et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Et je le félicite également pour euh, ces longues années de bons de l'État, au sommet de l'État en tout cas. Et surtout, ces longues années de service irréprochable puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été dans autre chose qu'une bonne application

successeur, comment vous l'avez vécu Nous venons effectivement de procéder à la passation de service avec monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Je voudrais rendre grâce à Dieu et au président de la République, Macky à mes parents, à mes collaborateurs, à tous les Sénégalais, à quelque niveau où qu'ils se situent, qui ont pu me soutenir pendant tout le temps où j'ai pu être dans le gouvernement du Sénégal. Je voudrais insister sur cet aspect qui est l'occasion qui m'a été donnée par le président Macky Sall en mon nommant à des postes de responsabilité régalienne et en même temps dans l'attelage gouvernemental au plus haut niveau de cet attelage Premier ministre du Sénégal. Je voudrais également dire que cela m'a permis de servir mon pays et de pouvoir donner la mesure de ce qui peut être à ma disposition et en termes d'expérience. En rencontrant aujourd'hui, dans le cadre d'une passation de service qui est empreinte de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là. Et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter

et qui montre la vitalité de la trajectoire dynamique a pu se conclure par en 24 ans. une performance remarquable et un motif pour notre à chaque étape, peut, quelles que soient les circonstances, choisir à qui il confie les destinées du pays. Et je voudrais pouvoir dire que cela est dû aussi à la solidité de nos institutions, dont le bon fonctionnement a participé à cette élection transparente et apaisée, mais aussi à la qualité de nos hommes politiques qui ont tous félicité donc les élus, particulièrement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais également le dynamisme de notre société civile et des différents acteurs qui ont été engagés dans le processus électoral qui a pu se dérouler dans les meilleures conditions, les conditions qui ont amené une élection incontestable et incontestée au regard du fait que le résultat a été accepté par tous les acteurs politiques. Sur ce point, je voudrais vous dire au moment de quitter mes fonctions alors à la tête du gouvernement du Sénégal mes pensées vont sur toutes les personnes qui m'ont soutenu et la personne la plus proche c'est évidemment mon épouse mes enfants mais également mes collaborateurs les populations de Tamba qui ont marqué un soutien indéfectible à mon endroit mais aussi l'ensemble du peuple sénégalais qui ont permis de mener ce travail-là je dois le dire que je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinées de ce pays, je demande aux Tout-Puissants de les aider, de les guider et de les ramener à prendre les décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor qui est la cohésion nationale. di di euh, tey jii bis bu rëy la ndax président. Euh, qui a inspiré le Sénégal parce qu'il a été le choix maa ngi wax en français je vais reprendre en wolof bon tey jii maa ngi ci primature ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko ñu def li nga xam ne mooy passation de service def nañ ko dans la sobriété def nañ ko sans folklore ndax lu ci gën a am solo mooy di dañu war a jubli immédiatement ci liggéey bi di ko féliciter ndax président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko tàpp pour mu nekk njiitu gouvernement Sénégal liggéey bu am solo la te xam naa ni dina ko def ni mu ko ko santé te ñaan lañ ci am mooy di yàlla dimbale ko assisté ko pour mu jël décision dogal yi nga xam ne dina tax Sénégal gën a jëm kanam di félicité le président Bassirou Diomaye Faye ndax askan bi moo ko fal ci ay élection yi nga xam ne élection apaisée la maanaam dañ ko def amul benn coow preuve bi ñëpp ci d'accord ñi nga xam ne ay candidat lañu te ñi nga xam ne tamit eh, dañuy participer ci liggéey bi ci élection bi ba ñu am résultat bi dañu war a am ndégte bu rëy pour suñu démocratie ndax dafa wóor ne que démocratie bi dafa am ay fondement dëgg ci fukki at ak ñeent am nañu ñetti alternance en deux na démocratie dafa sàkk wane na tamit que le peuple sénégalais dafa am maturité peuple bi nga xam ne askan bi nga xam ne mooy fal mooy fol te def nañ ko le vingt quatre février vingt quatre euh, mars te choix bi ci président Bassirou Diomaye Faye le tombé maa ngi bugg euh, remercier le président de la république le président Macky Sall mi nga xam ne moom moo tax comme ministre jox ma ay ministère régaliens durant période bi nga xam ne maa ngi ci gouvernement bi ba nommé ma comme premier ministre du Sénégal di remercier tamit ñi nga xam ne yàgg na ma jàppale ci liggéey bi sama soxna. ay doom samay xarit samay collaborateurs le peuple sénégalais en entier ndax soutenir nañ ma mais ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci région de Tambacounda yàgg ma soutenir ci liggéey bi lu des mooy di ñu ñaan pour les nouvelles autorités premier ministre moo nekk sama wet yàlla yombalal ko liggéey bi mu def ko ni ko peuple sénégalais bëgg pour ñu gën a dem ci li nga xam ne mooy le développement de notre pays et en même temps di ko ñaanal eh, ci liggéey bu mel nii nga am gudd fam ak wér gu yaram loolu laa leen bëgg wax te di leen. voilà gars yi salaamaaleykum mbokk ami internet univers info TV comme ni ñu leen ko doon toppalee actualité bi nga xamante ne moom moo xew fii ci Sénégal tey présentement mu nekk 8 euh, avril 2024 d'après passation de service bi nga xamante ne président Ousmane Sonko premier ministre ak ki nga xamante ne moom mooy Sidiki Kaba def nañu ko ni ki léegi fii ci primature gis nga leen ñu ngi nii. Euh, di di di di di dem pour mën a def li nga xamante ne moom mooy fonction yi nga xamante ni ku nekk tabbu nañ ko ko gis ngeen ko nii après nañu leen dugal image yi nga xamante ni moom la ñu euh, rotal ku nekk wax ko moromam kii félicité moromam kii tamit ñaanal moromam parce que tamit loolu la ñuy xaar ñoom léegi ñoom ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy euh, liggéey bi gis ngeen leen cortège bi mi ngi noonu